nag ñun ci télévision Futur Média ñi ngi dellu di leen euh, nuyu am mbégte bu yaatu dellu si ak yéen ci seen émission soir de campagne euh, soir de campagne nag ñu leen koy defal bis bu nekk waxtu bi ñu ànd ci ak yéen euh, muy émission boo xam da leen di gunge diirub campagne électorale bi nga xam ni moom la ñu jagleel élection législative yi ñu jàpp fanweeri fan ak benn ci weeru sulet Euh, du rek euh, soir de campagne waaye yéen a ngi suivre euh, di seetaan taxawaay bi nga xam ni télévision Futur Média mi ngi koy ànd ak yéen ngir rek ngeen ànd ak ñi nga xam ni ñoom ñooy coalition yi ci seen ay campagne dara bañ leen réer dara bañ leen ump ci ni nga xam ni noonu la ñuy doxalee campagne bi loolu mooy li yëkkati. taxawaayu télévision Futur Média muy ànd ak yéen euh, diirub campagne électorale bi euh, ci soir de campagne tey ñu am mbégte bu yaatu euh, di ci recevoir kenn koo xam ni yaakaar naa ni duñ ko présenté Mame Diarra Fam la tuddu honorable député Mame Diarra Fam moom la ñuy recevoir tey mu nekk itam ñu investir ko ci département bu Pikine Wallu Sénégal bi nga xam ni président Abdoulaye Wade moo jiite seen liste nationale ci coalition boobu la Mame Diarra Fam bokk ci lëkkaloo goo xam ne nag seq nañ ko ñi nga xam ne ñooy yeewi askan wi maam Diarra maa ngi am mbégte di la dalal mu nekk mbégte bu yaatu euh, wax dëgg yàlla maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoog ñi nga xam ne ñooy seetaan. Euh, mbokku Sénégal mbokku àdduna mbokku euh, Afrique Asie Europe ak sama dëkk ba waa Italie maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu Pape Ngagne yow. Mm-hmm. waaye bu ma la nuyoo rek nuyu naa borom kër gi muy mm-hmm. Alaaji Youssou mm-hmm. di suma suma càmmiñ di suma xarit aussi. maa nuyu di nuyu njabootam yëpp. waaw di di di dugg ci émission bi rek eh, di nuyu waa ginnaaw raay nord bi ma jógee ginnaaw raay sud département de Pikine maa ngi nuyu ñëpp. di dal ci émission bi di wax ni eh, lu ñu wax ci émission bi tey yàlla doon njëriñu Sénégal eh, doon njëriñu àdduna barke Serigne Touba jërëjëf waaw maam Diarra laaj bu njëkk bi rek mooy man dama gis ñu investir la ci département bi alors que ci législature bu mujj bi eh, diaspora ñoo la investir loolu jaxal na ma trop parce que jàpp naa ni normalement foofu nga ko waroon a biisaat ci diaspora bi rawatina foofu ci Italie lan moo lan moo indi loolu. ah justement Pape Ngagne eh, <coughs> laaj bu pertinente la parce que eh, xam nga. Euh, bi ba fii watoog nii député diaspora la mhm. waaye itam ci diggante bi dafa am xew-xew élection municipale daf ma fi fekk ma dëkk ci dëkk boo xamante ne muy le département de Pikine mais particulièrement ginnaaw raay Nord euh, dafa manqué woon taxawaay par rapport ak engagement bi nga xamante ne leader yi war nañ ko engagé wu pour euh, dox ci bëgg-bëggu ginnaaw raay Nord yàlla nattu ma ma am fa kër di am lu ma fay dund mu doon ci man métit te xaw ma feneen fu dul <laughs> Pikine comme ni ma koy waxee mais xaw ma feneen fu dul ginnaaw raay noor damay wax ni guddi guddi ginnaaw raay noor bëccëg bëccëg ginnaaw raay noor sama tranquillité foofu laa koy trouver ma amoon yu ma metti yoo xamante ni eh, bëggoon naa ci dugg ma dugg ci laaj baatu ginnaaw raay noor maanaam bokk moomeelu ginnaaw raay noor yàlla def ma def transfert de lecteur nekk fa yàlla def ma Euh, candidat wu wallu Sénégal ab Ablaye Wade président Ablaye wadd ma koy nuyu bu baax ak le moo candidat Karim sa wadd ñu wóolu ma dénk ma kàddu parti démocratique sénégalais mais dénk ma coalition wallu ma jiite département de de ma détee li nga xamante ni mooy liste bi nekk wallu ci ginnaaw raay noor euh, ni ma ko bëggee woon itam euh, doomi ginnaaw raay yu bari ànd nañ ko ak man bëgg ma bëggale ma ko waaye yàlla moo ko dogalul ndax yàlla mooy fal mais bi loolu Euh, diggante bi élection municipale yi ak élection législative yi trois mois moo fi dox xëy na am na ñoo xam ne defoon nañ ko nekk euh, candidat yàlla xiir leen ci ñu delluwaat Europe inscrire waat def transfert encore pour laaj mais man loolu du sama du sama gis-gis sama gis-gis mooy euh, fi ma dëkk yàlla def ni li immigré yi na borom kër gi woy na ko jom mooy tukki mais ful la mooy ñibbisi parce que bëggoon nañu ñibbisi bu yàgg waxtaanoon nañ ci yàlla jaarale ko ñu nekk député diaspora ñëw toog donc je pense que euh, ñu représenté ginnaaw raay moo doon li gën ci ñun te itam moo doon lii cohérence que ñuy delluwaat trois mois après daal ni waa ginnaaw raay noo naxee mbaay ñun dañ doon naxante nii rek. d'accord waaw donc naxee mbaay bi diaspora bi nga ko def. pas du tout cest à nga ko def. pas du si man li ma jàpp mooy. Hmm. ci reconnaissance. bu fekkente ni da nga nekk député jaspora ñoom ñu fal am ci yow yaakaar. Hmm. j'espère que li gën a rafet mooy liggéey bi jaar yoon. Hmm. ba même nga nga nga nga nga briqué waat. nga briqué waat beneen mandaa loolu man pour man mooy reconnaissance parce que. dëgg la guddi guddi ginnaaw raay nangam nangam ginnaaw raay waaye nag boo déggee député du ginnaaw raay diaspora bi la am jaara mhm. est-ce que gënul woon jekk gënul woon rafet aussi nga biisaatal leen ko wala par exemple danga amul bilan boo teg ci seen loxo <laughs> jàpp ni itam boo ko laajee duñ la ko jox lan moo ci am ci loolu waaye yooyu yëpp nag wax dëgg yàlla yàlla def na ni benn amu ci Pape Ngagne <laughs> euh, parce que mm, gisuma du ci sama jikko sax may naxee bon je pense que bu fekkente ne dañuy wax ci nit naturel bi rek bi nga xam mu xam la xam nga ne man du ma nit buy naxee parce que euh, ku koo àndal fan ñaar fukki at ak nangam yu waaj a mat xam nga ni du ma nit buy naxe pam ngañ euh, mais yàlla dafa def ni lii ma la wax mooy samay raison te euh, raison yuñ mën a nangu la yàlla tamit def na ni mbooleem koo xamante ne nekk nga ci jas ci Europe du Sud parce que damay bëgg toujours ñuy xaajale député diaspora diaspora diaspora en entier la on a quinze députés. Okay. mais man dama am département bu ma jiite muy département de l'Europe du Sud ñu am ñetti député ma bokk ci ñetti député yi nga xamante ne ma bokk ci député yi ñetti ñooñu ma bokk ci ñi ci gën a ci combat yu ma mëne par rapport à la situation des immigrés bokk ci combat yu ma mëne par rapport au au au aux des Sénégalais je pense que bu dee bilan rek la ñun am na lu ñu teg ci Sénégal te jàpp naa ni aussi sénégalais jas sénégalais bi nga xamante ni mooy sénégalais Europe du Sud yi ma ci wax ne ma waroon ngaa dellu si parce que ñun tamit doyalaguñu duñu jeex mais yàlla dafa def ni lii ma la wax rek mooy mooy mbir mi ñoom gisewuñ ko woon sax noonu mais man maa gis ni sama sama ngor ak sama jom du may wax ni de tey tey tey nekkoon naa euh, député nekkoon naa di laaj baatu ginnaaw raay Euh, juddoo fa yaroo fa màggee fa. Euh, defe fa lépp bokkul. élection yi ma ne yi bokkul. war nga mën a laaj par exemple local. Hmm. war nga mën a laaj bokk moomeel bi comme ni nga ko waxee. Hmm. waaye nag bu ñu demee ci législative nga xam ni boo déggee honorable député wax dëgg yàlla. diaspora bi ñoom ñoo la ko jox man jàpp naa ni ci li gën a reconnaissant. Hmm. mooy nga dellul leen ko fa bu fekkente ni euh, ñoom am nañ satisfaction ci yow ñoom yow itam nga am satisfaction ci ñoom li gënoon yomb kay gën a rafet la doon. waaw xam nit bu nekk ak ni muy gisee rek pam nga mais man aussi dëkk bi ma dëkk moo ma gënal moo ma gënal fépp ok xam nga yàlla dafa def ni pikin googu pikin sunu pikin boobu man daf ma gënal dama ne sama carte d'identité bi fu ne am naa nga boo ko waxoon diaspora ba nga leen di campagne mais xam nga ni doo nekk député <laughs> loolu moom <laughs> loolu moom sax loolu moom duñu ñu laa xam nga ni boo leen waxoon loolu boo leen waxoon arrière duñu arrière xam nga ñun du ñu arrière. yàlla def na ni bi may nekk député aussi lii ma daj pour nekk tey député loolu laa dajoon pour nekk député kenn musuma may dara sur un plateau d' argent mais nag sama bilan avant may nekk député moo ma faloon tey. ma ànd ko ak fédération PDS Italie ay nit yu gëm li nga xamante ne mooy parti démocratique sénégalais ñu gëmoon ma gëm ma ba tey ñu gëm ma parce que fii ma toog di wax ak yow euh, ca Milan section ba ma fa am di jiite ko maa ko jox jeune bu dynamique bu tudd Makhtar Ndiaye daa baax te maa koy suivre comme du lait sur le fa je vais gagner mes treize bureaux de vote ndaxte maa xam ñoo ma fa inscrire te maay wax ak ñoom. d' accord d' accord d' accord d' accord hono honorable ñu ñëw ci législature bi nga nekk député presque durub. Euh, juróomi ay d' accord alors. mu nekk assemblée boo xam nag marqué nga ko vraiment marqué nga ko ci ci ci buzz nag li ci ci buzz moo ci gën a fës franchement euh, et c'est dommage nag c'est dommage parce que législature la boo xam ne ñu bëri euh, daanaka ñi ngi koy ŋàññ gis nañ fa lu bari ci xeex gis nañ fa lu bari ci xuloo gis nañ fa lu bari alors que gisuñu fa lu bari ci taxawaay boo xam ni moom la ñuy xaar ci député boo ma doon euh, boo ma doon defal bilan wu législature boobu nga xam ni mooy sa premier législature ci assemblée nationale lan nga ma ciy wax. waaw wax nga ko léegi dama waxoon ni bilan li ko waral mooy législature bi moo mel noonu. législature bi nga xamante ne mooy treizième législature euh, assemblée bu politique la bu bu bu bu lool moom moo waral li nga xamante ne mooy genre cas yooyu ngay gis mu nekk yenn saa yi ay altercation entre les députés ak yu mel noonu di fay am. parce que aussi moi je pense que. Euh, euh, li liggéey bi li muy bari bari bari bari. assemblée day politique ah. muy fii muy fu mu mën a doon. fu mu a doon day politique mais loolu moo tax ma ne la. loolu moo tax ma ne la du fii rek la gisee. xeex ci biir assemblée. fii rek la ñuy gisee ci Sénégal xuloo ci biir assemblée. loolu dëgg loolu moom booy boo nit ñi def ko si seen bopp. parce que dama naan hémicycle bi nu mu faron forme ovale forme œuf boobu mu yore noonu. amul kenn kuy dugg doo fa gis Pape Ngañ mu dugg mukk naan Maam Jaara noppil Pape Ngañ noppil ñi fay xuloo ak leen di atte ñëpp c'est entre te eh, divergence d'idées yi mooy indi loolu te yenn saa yi da nga fay nekk. divergence boobu na jur njariñ cest à na na jur lu positif quoi. loolu laa bëgg moo tax ma wax la ni la. waaw dañu war seet toujours ci Sénégal mës naa ko wax kenn ma est-ce que li nga wax bu Karim Wade ñëwoon par exemple nekk eh, président di nga ko nangu ma ne suñu joxatee état suñu joxatee présidence de la république ñu ñu fal kenn nañu fexe ba. assemblée nationale bi ñu jox opposition parce que li waral loolu man ni ma ko gisee mooy dans les grandes euh, euh, démocraties généralement c'est comme ça mais ni ma ko gisee mooy li doon xew assemblée nationale parce que da lay wóor ni même loi bi baaxul pour jàll comme le, la loi sur le parrainage baaxul woon pour la pour jàll mais majorité absolue majorité mécanique boo xamante ni le président Macky Sall am na ko mooy taxaw imposer ñu seen volonté jàllale ko parce que man soo ma gisee euh, xëy na peut-être sénégalais yi ñu ngi ma gën a xamee si li nga xamante ne mooy loi sur le parrainage ak emporte bu ma emporté woon si benn côté mais jàpp naa ni loolu moo dul assemblée nationale assemblée nationale am na forme boo xamante ne daf ko war di doxee di saytu ay loi yi baax ñu jàllale ko yu bon ñu dindi ko mais même en plein commission commission technique da ngay toog wax indi sa idée développé parce que dégg naa démb ku ne am na ñoo xamante ne même brochure yi ñu leen di jox pour ñu lire budget ko def c'est vrai am na ñoo xamante ni duñ ko def. Mm-hmm. y a des gens qui viennent à l'Assemblée nationale une fois je peux en te dinañ ci egg ndax dinaa ko citer. Mm-hmm. xam nga comme par Awaña par exemple. elle est deuxième questeur à l'Assemblée nationale elle n'est jamais à l'Assemblée su leen neexee ngeen revoir li nga xamante ni moom mooy lépp luy plénière à l'Assemblée commission moom n'en parlons pas doo ko fa seen xam nga li ma la donc man fi ma taxaw tey muy Pikine ma taxaw fa war ko taxawal Pikine moo manqué voix te loolu wax naa la ko. Pikine moo manqué voix moo tax man ma ne je préfère toog Pikine boo yooyu bokk na ci li tax ma préfère parce que dafa am xeex yoo xamante ni ñun doomu Pikine noo ko mën a suñu bopp ah, mais hémicycle li fa war a nekk nekk fa d'accord parce que manquant <coughs> député yi dañuy manqué à chaque fois du ñu ñëw il ne travaille pas am na nag ci gouvernement bii ay nit yu gëm liggéey mhm. mun naa ci citer ay nit yoo xam ni opposition comme pouvoir ils sont toujours ou elles sont toujours ci commission technique yi toujours ña nga fa joxe seen participation ñu aussi ci ci plénière yi. mais ñooñu pouvoir ñu mel ni ñan par exemple. comme ni nga exemple ku mel ni Sira Ndiaye. Mhm. toujours nga gis ko ah, bañ na ko ba rabu assemblée laa koy poñee. Mhm. xam nga li ma la wax day ñëw tous les jours xam nga. Euh, ku mel ni Marie Sow Ndiaye. Mhm. elle est toujours à l'Assemblée nationale. mais comme opposition comme pouvoir y a des gens yoo xam ne ils ne viennent jamais. parce que aussi opposition bi li tax yenn saa yi tamit duñ war a ñëw da ñëw wax say idée ñu lay cokkati xale tuuti di la ci kër di la ci biir ci biir. Euh, salle des commissions commission technique ñu bëri duñu ñu sa war a ñëw c'est ça donc dañu war a revoir mode d'investiture revoir le député wax ko lan mooy fonction pour que au moins mu xam lan mooy ma lan mooy chargé lan nga bëgg a expliquer ci mode d'investiture bi lan nga si bëgg wax ñu war ko revoir lan nga ci bëgg danga jàpp ni donc euh, loolu moom mooy mooy mooy base euh, nit ñi nga xam ne ñoom lañuy ñuy am assemblée nationale ba du ñu am assemblée bu baax ndax loolu nga bëgg a expliquer mais évidemment waaw xam nga bu fekkente ni amuñu assemblée bu baax xam nga patriotisme dafa am solo xam nga nit bu fekkente ni dafay engagé wu ni man dama ñëw pour jël euh, problématique wu sama dëkk pour indi ko waru ko monnayer avec de l'argent mhm. loolu laay wax man. lan nga bëgg a wax ci monnayer ak de l'argent. mais parce que tout simplement euh, le député il est waxuma il est logé mais quand même il est payé. xam nga am na am na cakof li ñuy wax am na am na lu ñu koy fay. loolu ñu koy fay noonu indemnité. waaw am na immunité am na il a il a une voiture il a de l'essence il a tout donc bu fekkente ni nit ñi ñu xëccoo nekk député rek parce que avantage yooyu moo tax ce n'est pas la peine ngay nekk député député da ngay gàddu sa préoccupation wu ñi nga xamante ne ñoom ñoo la fal nga di ko yóbbu mhm. mais man c'est à l'hémicycle te je prends en témoin euh, peut-être Mariso Ndiaye ak keneen ak keneen dans dans Pikine par exemple mun naa ko wax bu ñu demee ba un député Pikine yabal la nañ nañ wax rek bu ñun d'accord rek d'accord cinq député Pikine yi Pape Ngagne nañ mat ñëw toogal fii wax ma lan mooy seen bilan ci cinq ans yi lan lañ def qu'est-ce qu'ils ont fait mais lan mooy seen problème bu nee Mame Diarra tëb na dem hôpitalu Thiaroye parce que problème am na fa le lendemain Pape Sagna Mbaye wàcc awaña euh, wàcc ñuy ni ci journal loolu xam nga xew na fi leneen amati encore euh, ci ci benn ci hémicycle bi laa gisee monsieur le ministre merci à pikin y a plus d'inondation keroog bi ko awañaa waxee ci biir ci biir ci biir saal bi damaa jël sama saak ne Mariso maa ngi ñibbi Mariso ñu ree ma ne ko non lii mënu ma ko gis man sama oto de patauger tey la ma pono bënn sama oto indiwu ma taxi ma indi fii ma toog di wax ak yow taxi moo ma jëlee sama kër sànq mënu ma génn ndax ay ndox tu ne peux pas dire que euh, pikin amatul amatul amatul par exemple euh, euh, inondation donc kooku mooy genre député bi nga xamante ne dafa monnayer li ñu ko li ñu ko fal muy parlement ak peut-être des avantages ak des intérêts te doo fa teg sa tànk doo fa jaar doo fa teg sa tànk doo fa jaar wàññi leen hémicycle baa ngi nii chaque plénière doo ko gis du fa teg tànkam donc loolu moom la ñuy wax que ni député waru ko nekk député mhm. da nga war a assidu di liggéey commission technique di liggéey plénière loolu moo tax ma dañu seet mode d'investiture bi bu ñu investir nit yi parce que c'est des amitiés bu ñu investir nit yi parce que ay nit lañ noo xamante ne xam nga dañu xaritoo wala militantisme wala yooyu c'est vrai que le militantisme aussi paye mhm. di nga yàgg nit un président de la république un quelqu'un mu jox la cër. parce que yàgg nga ci mais compétence daal mais compétence war na ci am euh, mm-hmm. amour war na ci am patriotisme war na ci am mooy compétence loolu la mooy mooy député bu compétent mooy député boo xam ne li ñu koy soxla xam na ko te dina ko taxawee justement d' accord léegi ndax taxawee nga ko yow vraiment en tant que député diaspora Italie mm. lan nga fa mën a teg loo xam ne ñoom ñi ngi lay déglu man maa ngi lay déglu ñeneen ñi ngi lay déglu nga ni mankat lii seen doléance la woon lii nangam nangam lii ak lii ak lii lii laa ci def ok ok xam nga man euh, damay wax ni Euh, par exemple Italie damay jël cas Italie dafa am benn benn benn benn affaire boo xamante ne moom lañ mës a bëgg di ko xeex parce que ci la lépp tënku ci Italie mooy li nga xamante ni mooy euh, euh, partenaire du partenaire mais contrat social la entre l'Italie ak le Sénégal mm-hmm. parce ci loolu dafa am mbooleem problématique yi nga xamante ni moo nekk itali ñun ci loolu lañ ko mës di tënk di ko di ko jooy jooy ko ci Ablaye Wade ñu arrêté woon ko ñu jooy ko ci ci ci ministère yi fi jaar yépp nekk ministère de Sénégal de l'extérieur yàlla def na ni ci eh, fin wu peut-être sunu mandat parce que xam nga dama doon wax ne